Mm-hmm. Euh, tey ñu ngi ñu ngi wax coowal lu jëm ci li nga xamante ni moom mooy rapport euh, yi nga xamante ni war nañ ko teg ci table bi. Mm-hmm. pour réduction de des des des comptes. Mm-hmm. est que jàppoo ne tey euh, nar na indi peut-être benn yéexantal wala benn jiixi jaxa ci taxawaay bi nga xamante ni war nañ ko taxawee ak urgence yi nga xamante ni sénégalais ñu ngi koy xaar. ci est-ce que est-ce que xam nga ne am na ñuy dem di yoxasu di fay. ah bon di rembourser ay maam yow yow yow yi ngay indi fii nii. est-ce que est-ce que bokkoo ci xam nga xam nga man ay reetaan daf may jàpp. des fois des fois damay dégg damay dégg xëy di déglu wala mu dugg biir Facebook ak yooyu wala réseaux sociaux yi mais damay ree parce que eh, li ñuy wax ak li nekk du benn xam nga kiy jóg gis ne bon luubal na alalu askan wi. balaa OFNAC di ko woo wala keneen di ko woo gis nga li dal Mame Mbaye moo lay dal da ngay taxaw wax dëgg gi la cay des nag bi bi président déclaré rang bi guddoon keroog bi mu defee discours am wax ni képp koo xamante ni ñëw nga déclaré wala nga ñëw boole am na lu ñu warloog yow keroog bañ xëy rang bi gudd na de sëñ bi rang bi doon ñëw di kii c'est du ñu guddal ay ay secret d'état di ko di ko di ko bàyyi muy dem mais li ma la mën a wax mooy ni coow li li muy bëri bëri yëpp ne seen xel daal dara du ci yeex li war a dox mu ngi dox parce que xam nga buñ ne dana jaxase tey publier leen rapport bi mm-hmm. mais publier nañ quelques personne mu des ñeneen est-ce que ñooñu ñu publier tey fitna yeewu na amul benn fitna bu yeewu. mais ci kenn. non dafa ndànk dégg goo ñu ne la topp nañ kenn xam nga topp gi du Ousmane Sonko premier ministre wala Diomaye président de la République moo naan e Cheikh demal nga toppal ma diw déedéet loolu amatul. yoon mooy def boo seetee nii ni président di doxe ak euh, le premier ministre da ngay xam ni léegi séparation yi leer na naññ ne. président am na loo xamante ni dugalatu ci loxoom premier ministre moo gérer nan la ñuy gouverner ak yooyu mu ngi koy dox. dégg naa sax Abdou Mbow di ci wax yeneen xom astafurlah euh, kii Mbaye Ababacar mbay la xawma suma juumul président Diomaye ma nga ci ruq ba mu nekk la muy def lay def li mën a mën a waxal mooy ni ñi ñuy jot a génne muy jóob si muy mu kële jàllo nu ñu koy tuddee ti ki dëkk Louga Mamour Diallo ñooñu fi mu ne nii am na leneen lu ñu tal mm-hmm. lu dul naan dañuy yëngal wala dañuy déconner xam nga fu ñuy yëngale ñoom ñu ngi xaar ñu indi leen seen convocation neen dem leen wuyu ngeen justifier lii ñu leen tegal nan la demee beneen bi ci des xañ na boog ña ngay dem di tàllal loxo ñu leen di ñaanal pour cooli mën a fay mais li ma la mën a wax mënuñu lu yàlla bindul ci Ousmane Sonko mënuñu lu yàlla bindul ci Diomaye segam mm-hmm. moo dem ba të président Macky dem ba të ñi ko fi ñi ko fi doon galgal ñëpp tey yenu benn affaire ne da koy doxal te ko ci dëgg képp koo xamante ni luubal nga alalu askan wi da ko indi te loolu nag la séentu. mais Imaam xam nga lan lañ ciy bañ mu nekk chasse aux sorcières comme ni ko gouvernement bi fi ne nekkoon defoon parce que gis nañu. liste non non non personnes yi nga xamante ni s'il te plaît s'il te plaît. waaw attends attends baal ma terminer sama sama question baal ñi fi ñi fi ñi fi nekkoon. sénégalais yu bëri euh, laajoon nañ ñu def li nga xamante moo di réduction des comptes gis nañ taxawaay bi nga xamante ni état boobu amoon nañ ko ci ba am ñoo xamante ni ciblé woon nañ leen mhm. ñu dem ba au finish nee nañ ñu am na ci ay kenn lañ ci topp ñenn ñi am na luñ ci récupéré ba tey gisuñu li nga xamante ni récupéré nañ ko teguñu ko ci table bi sénégalais amuñu ci benn benn preuve est-ce que tey mhm. duñu dem ba également à un moment donné également gouvernement bees bi mën nañu am na ñoo xam ne ni ñëw nañ ci suuf comme ni nga ko waxee léegi joxe nañu mhm. te kenn mënul am preuve ne ñooñu joxe nañu parce que mhm. teguñ ko ci table bi publié wuñ ko même su fekkente ne am na loo xam ne ni secret dana jaar yoon ñi ñu épinglé danañu dem ci yoon yoon leeral ku ci remboursé da nga remboursé kuñ ci tëj ci kaso bi danañ la tëj kaso lépp ñu teg ko ci ci ci biti ma ne la da ma waxal la rek li ma lay wax bee boo nga jàpp ko kuñ ciy tëj kaso danañ la tëj kaso nga remboursé danañ la tëj kaso nga ñàkk a remboursé danañ la tëj kaso te gis nga su boobaa jomaay du ci impliqué wu mm-hmm. président Ousmane Sonko du ci impliqué wu benn ministre du ci impliqué wu te loolu la sénégalais yi laaj sénégal yi dañu bëggul ñuy xëy suba euh, euh, Ousmane ko naan ah diw day euh, cent milliards yi mu jëloon bu dul woon ak Jomaay kon danañ ko tëj kaso mais Jomaay moo ci dawal ndigal moo ci dawal sutura wala mu ne bu dul woon xalif général de Mourides wala bu dul woon xalif général des Tidiane loolu jeex na sëñ bi loolu c'est fini alhamdulillahi rabbil alamin li fi des ñoom xam nañ ni c'est fini sax parce que ni mu dox